damay commencer par sant euh, waa conseil départemental parce que daaw lañ fi ñëw ci mois de novembre si je me souviens euh, dig ñu ñaari classes yi fekk boobu effectivement on avait de problèmes on avait un déficit de trois salles yàlla euh, def na réaliser nañ ko li ñu waxoon def nañu ko donc ñu ngi leen ci sant ñoom suñ partenaires yi lañu bokk donc APE mooy suñ premier partenaire mais je peux dire que après l'association des parents d'élèves c'est le conseil départemental d'une seule classe donc je crois que euh, c'est c'est louable ah maa ngi jégalu ngeen mm, ci ci wolof donc je veux dire que ñu ngi sant waa conseil ñoo ñu diggoon classe yi réaliser nañ ko dina tax euh, ñu travailler dans de bonnes conditions parce que li ñu amoon ci euh, déficit wàññeeku na léegi benn classe moo ñu dese pour ñu am classe pédagogique yi yem ak classe euh, physique yi. kon ba léegi des waaw des na wax dëgg yàlla des na xam nga école yi moom mëtale moom yombul mais bu ci ñëpp defee seen loxo rek euh, petit à petit euh, l'oiseau fait son nid dinañu yegg jamono boo xam ne xëy na li ñu bëgg yëpp. dinañ ko waral cours yi yi nag li tax tàmbaleegul mooy xale yi la parce que ñun prof yi depuis le premier le le le trois rentrée ñëw nañu ñëw nañu. mais xam nga pour nga jàngal jàngale nag il faut nga am ay ndongo ndongo yi nag ñoo ñëwul li tax nag loolu mooy fii zone boo xam ne le am na ci xale yoo xam ne sax dañu génn euh, pan ci vacances yi dem euh, daani seen doole pour mën a am seen inscription pay seen scolarité ñooñu ñëwaguñu am na ci ñoo xam ne fierté moo leen di jàpp ba nga xam ne bu ñu inscrire du ñu nangoo ñëw jàng si mais dans ce sens dinañ def benn sensibilisation ci média yi wax leen ne leen na ñu ñëw jàng prof yaa ngi fii cours yi dama dina démarrer lundi 17. yan yeneen jafe-jafe ngeen soxla ku leen si jàppale. jafe-jafe yi mooy classe boobu ma lay wax ne am des na su mën mënoon am ku ñu jàppale dina baax mais également am nañ batiment yoo xam ne électrifié wuñ leen daaw la le conseil de conseil de gestion bi def na effort def fa courant. Euh, classe yi ñu bees yi ñu may am na courant mais am nañ ñaari bloc yoo xam ne amagul courant loolu ku ñu ci jàppale woon dinañ jël salle ku ñu jàppale dinañ jël parce que xam nga ku nekk ci 2016 euh, école bi amul salle informatique xale yi mënuñu manipuler ordinateur loolu ku ñu jàppale dinañ ko jël également yooyu daal mooy problème yoo xam ne ñoo gën a urgent fi ñu toll nii mais y a d'autres yoo xam ne xañ na euh, du problème yu ñu tere jàng mais résultat yi euh, mu tëddee année bi gën. Euh, waaw résultat yi moom consigné naa ko ci sama rapport bi mooy su ma demee ci BFM bi daaw dañu nekkoon ci 31 pour cent ren on est passé à 51 pour cent donc y a bon bu dee bac bi nag. c'est 35 pour cent c'était la première fois quand même que ñu organiser bac fii euh, donc 35 pour cent c'est toujours la moyenne national Euh, neexuñu nag mais euh, on va rectifier. am ngeen terminal S. waaw am nañu terminal S am nañu benn terminal S ak ñaari terminal L. merci. ñu kontaan nañ ci euh, xanaa di gën a sant vraiment di remercier encore conseil départemental xam nañ ne surtout ki nga xam ne moom laa dendal di vice président jatara yàgg nañu di. di bokk ay ndaje surtout au gouverne à la gouvernance ou bien à la préfecture euh, gis naa ci moom euh, nit ku dëggu te vraiment donc il nous avait promis ça def na ko vraiment kontaan nañ ci xanaa kay maintenant dañuy inter interpeller le proviseur et l'équipe pédagogique ñoom ñu entretenir vraiment ce joyau waaw que yeneen tawat yi euh, yooyu ci lan moo si taxawaayu mairie bi doonte sax peut-être ne dépassé nañu fi ñu wax ne lycée collège. Mhm. conseil départemental mairie bi du si dugal loxo. bon bien que mairie bi am na yeneen établissement yi nga mi ngi ci compétence maanaam l'élémentaire mais n'empêche mi ngi jàppale bu baax a baax lycée parce que à chaque fois les centres d'examen mairie bi dina ci dugal loxoom mais aussi dana créer aussi euh, ay prix d'excellence yi nga xam ne da koy jox surtout CM yi ak lycée yi les meilleurs élèves pour les primer pour les encourager vraiment bien travailler pour euh, vraiment favoriser euh, l'excellence dans les écoles. seen xale yi lu tax ah waaw mais xam nga fii c'est le rural ci kaw gi fii beneen réalité moo fi ne c'est pas bokkul ak ville ba foofu moom mën nañ teel a commencé mi fii ñu bëri donc euh, waajur yu bari ñoom seen xaalis ñu koy jëlee ci euh, mbay mi te gis ngeen ba léegi des na tuuti ñi commencé peut-être rek récolte yi ndànk-ndànk peut-être loolu mën na nekk facteur bi nga xam ne moo téye ñenn ñi pour ñu mën a envoyé seen euh, xale yi ci école mais aussi xam nga fii aussi ñenn ñi seen leen aussi ñu def yenn ñëw te inscrire ñu donc xaar rek mën a loolu def ko ñu yi bëri aussi certainement am na ñi nga xam ne tamit dañoo dem ci taax yi di daani seen doole pour mën a am tuuti nga xam ne danañ mën a seen habillement ñu jënd ko mais aussi jàppale seen waajur yi ci fourniture rek ñoom seen ok merci. nii bu fi nekk doo ko gëm. seen boo xam bi amul courant amul ndox euh, léegi sax la am ndox bi ñu defee forage bi daaw la soog a am ndox mais amuloon courant amul clôture amul ay salle de classe yu doy euh, année bi ma mujj a def fii ay abri provisoire euh, dépensé naa lu cent mille francs ci ay abri provisoire yoo xam ne ay craintes ngay jënd man ci sama bopp maa doon dem ba Pout. ak benn professeur bu dëkk leelo fii Babacar fay tout le monde ko ne maag moom dem nañ fii jëndi ay crainte yëpp ko ci oto indi moom fii wàcc moom fii guddi pour tabax tabax ak pour taxawal ay mbaar nga nga frais ci ay sept cent huit cent et quelques mille mbaar yoo xam ne du am sax ñetti weer ñu yàqate ko tu te encore dans la euh, euh, nature comme ça ci lañ jëlee aussi initiative ñun ñoo jël initiative tabax ñaari salle de classe yoo xam ne benn année en 2012 la je crois dañoo dem ma ne leen euh, affaire yi tenue scolaire yi nekkul priorité bala nga ngay tal tenue scolaire na tal foo toog salle de classe boo dugg ci laa jëlee initiative ak ci conseil de gestion bi ma wax ko conseil de gestion bi d'accord ci ñu euh, euh, jël initiative tabax ñaari salle de classe ñu tabax ko ba mu boo versé suñ xaalis jeex mais fekk man bind naa aussi aéroport woon ko ne ko ñu ngi commencé ay salle de classe xam nañ ne suñ moyen man mayu ñu ñu terminer ko mais léegi dañoo bëggoon AIBD jàppal ñu wax dëggee la foofu moom AIBD gaawantu na ci parce que bi ma leen ko waxee quelques semaines après laa jot tontu comme quoi d'accord nañ ci pour ñu euh, dimbale ñu pour yeggale salle de yi te nañ ko waxee woon wax dëgg yàlla aussi noonu lañ ko defee ñoom ñoo yeggali ñaar ñaar salle de classe yooyu euh, peinture ko équiper ko mais depuis lors nag wax dëgg yàlla defaatuñ dara te man duma ma euh, tàyyi di jokkoog ñoom mais wax dëgg yàlla depuis loor defaatuñ dara xawma lu xew conseil départemental bi nag wax dëgg yàlla ñoom tam ñu ngi leen di sant ndax mur de clôture bii tey te lii depuis daaw ñu ngi koy wax ñun ñu ñii naan nañ def lii ñii naan nañ def lee bo yàlla def na bi biñ fi mujjee daje yàlla def na ñu dëggoo ci kàddu ba ñoom ñooy def euh, mur de clôture bi wax dëgg yàlla ñu ko waxee aussi dès le lendemain bon la liggéey bi commencé parce que dès le lendemain la euh, euh, entrepreneur bi commencé indi matériel am bi mu indee matériel bi aussi euh, indi maçon yi ñu commencé gas boo gis ngeen ko mbir bi nga xam ne moo féetee penku école bi sax daanaka pare na tuuti benn benn koñ moo ci des li ci des gas nañ ko ba mu wër ñu ngi commencé sampa deey donc yaakaar nañ ne aussi foofu wax dëgg yàlla duñ man lu mooy gërëm conseil départemental bien que clôturé wuñ espace bi ñu am yëpp parce que ñun on a euh, quatre hectares et quelques mais ñoom quand même li ñu def jël nañ benn hectare bi au moins clôturé nañ ko ëmb na salle de classe yi déjà loolu nekk na sécurité boo xam ne wax dëgg yàlla kenn xamul euh, dayoom nu mu toll parce que dana tax aussi élève yi xam ne ñu ngi ci cadre école parce que bu njëkk espace bu ubbeeku woon la rek àll bu ne ŋàpp kenn xamul xool lu dalee fu mu kii léegi nag wax dëgg la am nañ limite ku ci nekk na ne muré nañ ko école fii la yem fi dugg da nga xam ne dugg naa ci école soo génnee xam ne gën nga ci école loolu rek yaakaar naa ne dana nekk encouragement ci élèves yi pour que ñu gën a sawar gën a mën a jàng parce que cadre boobu ak professeurs yeeg ñun ñëpp d'ailleurs parce que courant bi amul courant bi wax dëgg la li ñuy gën a métti mooy Euh, soo seetee courant bi mu ngi jaar à moins de cent mètres mën naa wax ne à moins de cent du sem parce que fi mu jaar voie bi nga xam ne mooy fi la euh, moo jëm aéroport ak école bi su passé cent aussi ci laay yëm bon su matee cent mètres ci laay yëm euh, foofu suñ defoon ñaari poto rek suñ ko defoon effort normalement courant bi war naa mën a seg yegg ci salle de classe bi nga xam ne moo gën a sës côté boobu école bi am courant mais defuñu ko courant bi mu ngi dugg ci dëkk bi euh, fan yii ñu ngi wax wax ñu ngi wax sax population yi les villageois ne nañ def demande pour courant bi wàcc ci seen kër yi mais ñun mënuñ cee bokk ek CM bi mënu cee bokk te pourtant suñuy doom seeni doom ñoo fiy jànge su fekkee ne kër yi am nañ courant te école bi amul courant loolu dafay nekk lu doy waar parce que jumtuwaay yu bees yi nga xam ne moom la élèves yi war a jàngee mu leen muy mottali seen njàng loolu am nañ ko mais mënuñ koo utiliser mënuñ koo jëriñoo am na matériel laboratoire boo xam ne mu ngi fi depuis des années am nañ fi ay ordinateurs yoo xam ne ñu ngi fi depuis des années mënuñ leen a utiliser parce que tout simplement amuñ courant man dama obligé luye benn benn néeg ci site de recasement bi fële. dugal fa benn ordinateur ak benn kii euh, euh, euh, photocopieuse ak benn imprimante foofu la ñuy defee suñ tirage yéen ñëpp gis ngeen lépp waa dëkk bi xam nañ ne chaque fois dama daan jogee koo fii dem ba Thiès parce que pour da ngay dem parfois tu perds ton temps da ngay wër ba sonn doo gis moo tax man je préfère chaque fois suñu amaan tirage damay dem ba Thiès tiré ji ñëwaat daan naa def nawet bi parfois dans la journée deux fois deux fois pour six cent sept cent élèves xool leen loolu 600 700 élèves bureau bi comme ni ngeen ko gisee a pukkus la rek du bureau diggante ñaari salle de classe yoo xam ne matul paasewul 3 mètres 2 mètres 50 sax largeur bi sax 2 mètres 50 la euh, xaj na longueur bi mooy jël longueur du salle de classe mooy 7 mètres mais loolu dama ko xaaj sax ci digg bi bu njëkk ndaal yi ci foofu laa ko defoon ci sama buntu bureau dugal leen foofu boobu amaguma surveillant léegi bureau boobu moo nekk. magasin pour école bi moo nekk magasin pour denrée alimentaire yi cantine bi moo nekk lépp machines yi nga xam ne ñu utiliser wuñ leen ak yëpp ñu ngi foofu jalu fu ma tourné pour julli sax aw ma ko su may julli ci biti lay gën. waaw tey délégation conseil départemental nga xam ne ñu ko composé mooy membre bureau bi donc président Malick Ndiaye ngi nii doyen Pape Moussé mais également président commission yi doyen Mamadou Sall mais également commission des finances ak les présidents de groupe parlementaire comme ni ngeen ko xamee conseil bi dafa am ay groupe mais également les maires nous avons le maire de Thiès Est qui est là mais également des adjoints au maire ñëw ñun ñëpp ñu àndandoo donc euh, visiter yaa ngi fi inspection d'académie nga xam ni euh, ARD ngi fi aussi tous nos partenaires yi nga xam ni yëpp ñoo ñuy gunge ci liggéey bi ñoo àndoon ñoo xool liggéey bi nga xam ni conseil départemental sumboon na ko ci mbiru édu ci mbiru njàng mi yàlla dogal na euh, fi ñu tàmbalee mooy lycée Amary Ndack Seck nga xam ni conseil bi li mu fay def mooy jàppale euh, proviseur bi ci salle de classe yi nga xam ne dañu xaw a euh, màgget yenn yi day senn yenn yi également dafa xaw a amuñu sécurité mooy bâtiment administratif amul sécurité dafa bëggoon ñu jàppale ko dafa fa ay gris mais également étanché wu te bureau des examens ñu defaraat koko de même que salle informatique bi donc loolu la ñuy def biir Amary Ndack Seck après bi ñu fa jógee dem nañu CM r nga xam ne CM bu mag la te d'ailleurs daf ñu ko war a sax prévoir pour ay salle de yu bees mais également ab lycée boobu aussi amul clôture donc defe naa am na problème sécurité bu fa am ba tax na ñun jël nañ engagement clôturer ko donc te defe ni travaux yi dinañ ko commencer mais per tar pare ko sax avant le mois de décembre lool la ñu yaakaar bi ñu fa jógee également dem nañu nooto nga xam ni conseil bi euh, tabax na fa ñaari salle de classe yu bees équipé ko nga xam ni nooto intérêt bi mooy Noto dafa polariser Noto ak Tasset rek Tasset amul lycée kon salle de classe yi aussi bien pour waa Tasset la que pour waa Noto te ñoom seen seen seen joytu wu njëkkoon mooy ñu am ay salle de terminal yàlla suturaal nañu am nañ tabaxal nañ leen ko équipé ko et c'est fonctionnel te ñëpp gis nañ ko defe naa ni pour les deux communes yëpp dina leen bénéficier wu. bi ñu fëggee ñëw fii ci suun suun nag suun séeréer nga xam ni dafa mën naa ni voisin wu euh, aéroport ay la ak autoroute bi mais dañ fi fekk proviseur principal bu jàmbaar boo xam ne mu ngi fi depuis fukki at ak ñaar. mais également mu ne occasion aussi bu émotion parce que doyen Mamadou Sall mi ci ñuy créer CM bi la bokk. tey yàlla dogal na moom mooy président commission éducation bu conseil départemental suñ fi ñëwaatee mën naa ni loo xam ne moo ko sumboon ci la ñëw pour jàppale ko ci donc lool tey ñu ko ciy rendre hommage mais également rendre hommage principal bi ci effort yi muy def ndax quand même CM bi fi mu nekk rek déjà xam nga c'est un millier assez difficile mais mu ngi def ay jéego ñun nag ñëwoon nañu ñu demande ñu même sous préfet beeg yëpp dañu doon wax nañ leen dimbali clôturer leen CM yàlla suturaal nañu conseil bi am na budget pour defar ko te gis ngeen travaux yi avancé na bu baax te defe nañ ni fii ak euh, un mois incha allah rabi travaux yëpp dina yem te pour dire rek effort yi nga xam ne conseil baa ngi koy def ci mbiru njàng mi ndax jàng dafa ne secteur prioritaire pour conseil départemental donc yàlla dégal na également budget bi ñu joxoon ren muy 150 millions ci investissement 83 millions yi ci mbiru njàng bi lañ ko dugal donc muy à près 55 pour cent solo bi nga xam ne jox nañ ko mbiru njàng mi te defe naa ni da doon am solo ñu ñëw bokk ak population yi bokk ak ñi nga xam ne ñëpp mooy acteurs école yi noonu tamit lañ koy defewaat dans un mois peut-être ci mbiru santé di ngeen ko gis ndax santé jàppale waa bitim li ñu amagum nañ ci dugal donc te incha allahu rabbi yeneen secteurs yi fàttewuñu leen mais vous waaw li nga xam ni euh, gis nañ fi également mooy manque de moyens yi nga xam ni école yi am nañ ko ci Thiès defe naa puis CM bi accompagnement bi ci war defe naa principal bi dégg ngeen mu wax ko mooy bëgg nañu tabaxal leen bloc administratif mais également bëgg nañ courant dugaat loolu lépp am nañ yéene bi accompagner leen bëgg nañ ko mais problème bi mooy moyens yi moo matalewul ñun conseil départemental comme ni ñu ko waxee budget investissement cent cinquante millions la ñu am mais quatre vingt trois millions ci njàng lañ ko dugal ba tax bëgg nañu yokk. mais li ñuy demander mooy état bi mooy yi muy jox côté local yi mu gën ko yokk même les BCI yi ne dañuy tabax ay école ak yooyu nañ ko jox conseil départementaux yi ñoom ñoo gën a xam réalité am ci dëkk bi ci gox-goxaat ñoom ñu jël arbitrage ci war ñu def ko ak IA nga xam ni dañ xam nan la ñuy utiliser xaalis boobu de manière efficace te loolu quand même amagul moo tax ñuy demander encore à l'État d'augmenter euh, le les les budgets d'investissement mais aussi de fonctionnement des collectivités locales mais aussi partenaires yi nga xam ni dañu nekk yor ay projet am solo ci dëkk bi. par exemple aéroport bi ni mu jegee CM bi ak Ila Touba waruñu woon xalaat problème salle de classe wala problème électricité malheureusement engagement yi ñu jëloon yëpp ndax bi ñuy démarrer Ila Touba ñëw nañ seet si ñu boobu lañ gën a gis waa Ageroute li ñu waxoon yëpp ñu def comme expression de besoin gisatuñ ko te defe naa ni loolu quand même il faut le déplorer deuxièmement l' aéroport quand même et à quelques encablures CM waroon nañ leen dans le cadre même de, des sites de recasement et de, de, de la recherche sociale d'entreprise accompagner davantage donc des de ay CMI comme yi nekk ay suun beneen bi mooy un peu ñun tamit am nañu yéene ni comme ni ñu ko waxoon woon année dinañ tabax aussi ñaari salle de classe à Kayar ndax dañuy leen di ay seconde ndax Kayar li fa doy waar mooy xale yi suñu amee BFEM dañuy bàyyi jàng ndax amuñu lycée soit dañuy dem euh, Jandeer wala ñu dem Thiès wala ñu dem Sébikotane wala ñu dem euh, croisement Diamniadio or xale yooyu suñ bàyyee njàng dañuy jël mbëkk mi mooy gaal yi ndax ay doomu mool lañu te kon risque bi dafa am solo pour Kayar moo tax ren dinañ fa tabax ñaari salle de classe à seconde yi au moins téye xale yi chaque année aussi pour que ñun balaa mandat bi di jeex ñu mën a pare lycée Kayar noonu aussi lañ ko amee ambition à kër kër kër Moussa à Kaya à Diender mais également à Ndiéyène Sirax donc de même que à à nga xam ne également amul lycée donc cette année aussi dinañ tabax le CM de Kër Matar. donc dinañ leen may ñaari salle de classe ndax Kër Matar benn CM CM la mais benn salle de classe physique moo fa am ñun cette année dinañ leen may deux incha te loolu lépp xaalis bi yemb na bëgg nañ ko te pare incha allah rob fii ak le mois de décembre pour que travaux yëpp pare et xale xale yi mën ko utiliser cette année incha allah merci beaucoup jërëjëf.